de défense ñoom dañuy nekk foofu sécurité lañu pour képp ku amul sécurité ñu assurer sa sécurité ñu ngi leen di nuyu en passant ce qui s'est à Kër Massar le fa xew gis nañ ko nga xam ni gendarme ils ont été très professionnels ils ont encadré la manifestation bien que amul na ay nit yu dul jeex wante ànd nañu ak dal superviser manifestation moom jeex loolu la ñuy xaar ci. mais mais dañuy des si woote jàmm jooju est-ce que ñoom jàppuñu ñu ne fi ñu toll nii Ousmane Sonko am na ci wàll bu rëy woo xam ne su ko bayee jàmm jooju dana yomb ci Sénégal wala dana fi sax. Ousmane Sonko man ni ma ko gisee. Mhm. li mu war a bàyyi bàyyi na ko. mooy nekkul di woote ay moom dañ koy acculé. mais gàtt sa gàtt sa. wéy. xam nga nit ki boo ko acculé acculé ba mu sës day fépp taxaw ni la boo ma dóoree. ma fayu dóor fayu la wax mais waay waay nañu wax kii dóor mu bàyyi dóor kenn santu ko pour muy dóor bi kenn santu ko pour muy créer ay dossier kenn santu ko pour mu jël justice def ci loxoom ablaay waa da nga fi woon moom lu mu waxul Ablaye Wade da ko fàtte audio yaa ngi fi vidéo yaa ngi fi mais est-ce que Ablaye Wade s'est comporté de cette manière jàmm ji Macky Sall moo ko yore Ousmane Sonko mi ñuy dóor mënul yor jàmm ji ñun man waxuma Ousmane Sonko man ku dal ci Ousmane Sonko dinaa taxaw défendre ko surtout les plans. mais façon bi ñu koy défendre tamit est-ce que am na proportion yi respecté nañ ko. attends bu fekkee ni ñoom ñëw nañu yabal pour ñu jàpp Ousmane Sonko man damay taxaw ni kenn du ko jàpp xale yi loolu la ñu wax man dama ci bàyyi sama bakkan il faut que Sénégal ñu teg ko ci yoon keroog ils ont fait une chose bu nga xam ni je le soulignerai un peu partout mooy bi ñu demee Mbàkke. man tiire nañu ci suñu oto bi ñu nekkoon man ak Toussaint Manga ak Ayib dafe le député ak ay kilifa parti bi am oto bu ñu bind police parce que léegi munatoo différencier sax ndax oto police la wala du oto police en tout cas bind nañ ci police parce que dafa am ay nervi yu nga xam ni fu leen neex la ñuy dugg oto bi daf ñu topp tiire à bout portant ci verre arrière bi ba mu bët grenade lacrymogène bi dugg parce que man xaw ma kii dafa ni euh, lacrymogène la que leen ni euh, bon grenade la xëy na grenade la parce que dafa dugg ci biir lakk sama costume ba wane nañ ko fépp loolu lan la loolu agression la est-ce que police war na comporter woon noonu est-ce que ay nervi war nañ comporter woon noonu est-ce que du police moo war a régulariser la situation ba nga xam ni même bu amee nervi nervi yooyu ñu éliminer leen ñu bañ a am yooyu yëpp c'est des questions que nous devons nous poser pour apporter la paix dee indi doo wax ak kese da ngay wax ak ñaari parti yëpp parti bi nga xam ne nag mooy tooñ toujours di indi te kat liñ ko jox mooy police ak gendarmerie rek na ñu jël police teg fe jël gendarmerie teg fe ñu jaamaarloo ñu xool. déet waay loolu musiba lay doon ah attention loolu musiba lay loolu bu amee dina dinañu xam ni ñoom ëpp ñu ñu doole ëpp ñu ñu fit mais loolu yomb na ñu jox la police jox la gendarmerie nga koy utiliser yow boo demee jógee dem voyager bàyyi réew mi ñuy ko am ko affrontement loolu président Macky Sall daf ko war a bàyyi. fondamentalement daf ko war a bàyyi daf ci war a mettre jàmm ji moo ko yore parce que il est garant de la paix de la sécurité de des individus mhm. alors paix ak sécurité bu fekkee ne dañ la ko dénk dangay xool yow waroo dóor dangay xool ñaari ñuy xeex nga teqale leen ba pare da ngay jël poste supérieur te moom dafa jeexal ba pare war ba fii ñu toll waroon na jël poste supérieur mooy lan mu bàyyi ay njabootam organiser leen fexe ba ñu nekk ci jàmm parce que réew mi jàmm moo fi xaj ñun ñoo njëkk def appel à la paix donc on cautionne ñu ngi cautionné lépp lu nga xam ni nit a ngi koy wax mu jëm ci jàmm mais nag li ñu bëgg attirer attention nit ñi mooy jàmm ñaar a koy dox te ki nga xam ni moo ëpp doole ñu jox ko doole ji moom bu bàyyee dóor yi bàyyi xoqatal bi bàyyi réduire l'expression euh, l'opposition à sa prise euh, expression dinañu bàyyi mooy lan. yéen tamit lan moo ci seen wàll su fekkente ne buñ ne leen du ngeen marche ngeen ne da ngeen di marche par force. attention le droit de marche a été consacré par la loi. bu waaye loi boobu nga ne moo consacré bu leen ko aayee. ngeen nangu ci. comme dëkku droit la nekk kay. xam nga nekkuñu dëkku droit loolu mooy problème bi. mais dëkku droit lañ nekk. xam nga lu tax nekkuñu dëkku droit. Mhm. président Macky Sall bu ko neexee Khalifa Sall bu dee dugg biir Touba kenn du ko wax dara Ousmane Sonko rek la ñuy interdire c'est un problème deux poids deux mesures boo ko amee rek amatoo dëkku droit dem na Thiès moom def lu ko neex dem na Tamba fu ko neex lay def au fond ñëpp xam nañ tournée yi c'était tournée économique man bi ma nekkee si ñoom laa leen yéen seen tournée yi te boobu maa ngi nekk Benno Bokk Yaakaar mm-hmm. ma ne leen seen tournée yi c'est des tournées politiques c'est pas économique liggéey leen réew mi te bàyyi li ngeen di def je l'ai dit am ostracisme kenn faale mo et cetera ma dem nag ci sama famille d'origine cest à fi nga xam ni foofu la principe yi ak valeurs yi bokke muy APE dëggu ak euh, Pastef nga xam ni ñoo bokk lépp ñoo bokk principe ñoo bokk valeur na ma daan waxee changé wu ma ci dara ña nekkoon si APS dëggu nag ñoom ñoo changé tey ba di waxee neneen kañu daawul xas ñu koy xas mhm. kañu doon xas ñu bàyyi ko ñooñu war nañ seetaat seen taxawaay Sénégal pour mu am jàmm il faut que nit ñi nekk ñu juste tegu ci dëgg ak dëggu démb dama kontaan ci daara bi ñu ñëwee ndax benn baat bu ñu wax ñaareel ba mooy dëgg ak dëggu mais loolu mooy réew même boo demee ba ci li xafor li li ture waxoon par rapport euh, à la religion mais loolu dëgg la ak dëggu ak leneen dëgg mooy suñu boroom ndax moom la bëgg boo dee def leneen lu bokkul ak dëgg yaa ngi jaamul nit loolu la ñuy wax cest man tey bu ma la yorelee sa su sa sutura dëgg taxaw. au lieu nga dem ci dëgg bi mooy li ngañ dem ba waxoon mooy li ngañ dem ba waxoon dama koy leeral. au lieu nga dem ci dëgg bi nga dem ndax sa sutura ba pare loolu nekk fenn xamal ni yaa ngi jaamu leneen lu ñu suñ borom ndax suñu borom mooy dëgg. ok mais dafa am ñoo xamante ne dañu ne waa Ousmane Sonko liñ ko tuumaal euh, di lu doy waa di yàqataan ak mënaas mu am ay kilifa ñoo xamante ne vraiment ñëpp ki ñu ñëw def benn mouvement di ko jàppale lan moo. lan moo waral loolu tey ji mu njëkk ba ku ñu mësaan tuumaal viol lu ni mel da nga daan am jafe-jafe euh, ñu bëri danañ la danañ la beddi am nu ñu lay xoolee ci nu mel mais moom c'est c'est l'effet contraire la ñu constaté lan moo waral loolu. xam nga lu tax xam nga commencement bi bi ñu ko jiiñee ñu bare ils étaient sceptiques l'islam dafa ni boo ci xamul dara nga maandu ci. Mm-hmm. nit ñi daal di maandu mais mu am ay fait ki ka doon jiiñ. nga gis que muy traîner ci tribunal bi sol yu nga xam ni kenn xamul lan la ku ñu violé di nga def noonu nit ñi am nañu xel alors de fil en aiguille ak audio yi ñu fi dégg ak MC Niass li mu wax ak juge yi ni ñuy doxale ak liñ ci dégg ci Mouhamed mbay ak ñi ñu waroon woo ñu ku mel ne Mamour Diallo woowuñu ko ak Dior Diagne mañ ci site yooyu yëpp dafa nekk sur la place publique ak surtout ki nga xam ni mooy docteur Alfousseyni gay nga xam ni dafa def un rapport médical alors ñu ni ko waaw yow di ko topp di ko xoqatal di ko dóor di bëkk otoom ba pare indil ko maletu xaalis ni ko changé lii waaye kooku ñu xam ni Ousmane Sell Sonko comme ku sell la kon lañ koy waxul amul dara lu mu ca def nit ñi ñoo tiire seen kongo yi moo tax ndongo daara ak sëriñu daara yi ni kii dañ koy xeex comme ni ñu doon xeexee yonti yàlla Yunus c'est-à-dire ni ñu doon accuser yonent yi noonu lañ ko accuser te ñun dinañ taxaw parce que dëgg fu mu. waaw me mais Biram Khoudia loolu tamit est-ce que du yéegal niveau bi fu gën a kawe ni ñu doon xeexee yonent yi noonu lañ koy. ah dañuy dañuy gis sax dégg yéen saa ngeen naan ku sell ki. yéen ne. man maa ni ku sell ci est mhm. jamono suñu sëriñ si seen jamono am lu nga xam ni dañ ko doon def ñu jël leen teg leen ku seen ki muy kiraama fi mu ne man dama jàpp ni kiraama bi gën a mag mooy ñu dénk la alal fu nga xam ni contrôle ku ñu fa contrôler jàpp la yow nga ni fukki dërëm kenn mënu la ko jiiñ ba pare ay nit ay entrepreneur taxaw ni man de contrôlé na ma keroog laa dégg sañ boobu mu yox man de contrôlé na ma waaye euh, doy na waar kii kenn mënu ko corrompre am ku ni démb sëriñ Baara wax na ko ñun ñëpp ñu ree mais man dama ciy jàngat lu bare dafa ni tubaab bi dafa ñëw di ko fay trente millions